ndigal sax Mbàkke sëñ Saliou ak wér yaram ji nga gi nga njëkk a wax rek ma ma ma fi ma taxaw nii rek maa ngi ci yoon waaye ma dugal ci nga xam nga xam njëriñ li ni muy ni muy amee njariñ ci nit ñi sëñ bi dafa fonk wér-gi-yaram mu jaral ko lu ne benn donga bu mas a am dara dal la nga mas a dem sa kër baay faju ji amul li ko tàmbalee ca faal docteur ma woon njàpp ndal ba ca hôpital Dantec ba ca hôpital principal ba fajale ba ñëw te sa yaay ak sa baay du yëg ne feebaroon nga loolu ku fonk lu yaram doo ko def fonkam wér yaram cib dongaam bala laa docteur yee consulter sëriñ bi lay njëkk a consulter ci ay tektal yu leer léeg-léeg ab donga day ñëw ne ko saa bi day metti sëriñ bi bu nee nacc tëye ci jëbi tëye ci laxo bi maanaam laxob loxo bi maanaam ci ci ci fi loxo bi di yëngatoo nga xam ne moo sës ci takkukaayu montaram su nee tekk fi lay yebal foofa dong lay faj kon moom dawuloon rek lu lay metti wala demal ñu faju ji déedéet dafa amoon nu mu daan xamee su nee nacc ci tikk jara bi fii loxo bi di yëngatoo boo yëngalee sa loxo fi yëngatu sédit googu bu ko boolewaatee ak ginnaaw loxo bi bu ko tëyee ci ñaari baaraam benn baaraamu dëyam ak benn baaraamu sànni kaayam lim lafiy wax ak kam la yebal mu lay faj soo demee mu faj la beneen a ngoog bi ki des mas na maa ñëw di ko jàmbat sama loxo bi sama tikk jarali méttiwul ci kaw dama ko ne méttiwul ci kaw mu ne ma waaw ma laa di bës loxo bi ne ko yëguma métti du fiine mu ne ma waaw ma ne ko waaye nag diggante bi fi mu jokkaloo foofu moo mel new xal sëñ bi ne ma sedd la fa saasa mu ne ma sedd la daal di ma ca jox ay tegtal fa saasa bi mu nee sedd la foofee laa mujj gisee ba ma defee lam ma wax ak ni muy manifesté woo ci ngay xamee ne ku xam sedd la kon beneen a ngoog daana xool nit ne ko àndu si mu àndu si mu tàllal loo ko aw làmmiñam aj ay bëtam maanaam jël mbarum kaw mi bés ko mu jëm kaw tàllal loo ko aw làmmiñam su noppee danaan kii dafa manqué deret animé da koy yóbbu Touba faj ko ba mu wér mu ñëw am yuñ koy digal lu mel ne ay ñebeeg yu yëpp mu koy lekk nga xam ne laa ko jarak ci këram la amoon ñaari ndab lañ daan togg maanaam ñaari mbana mbana ñu wér ak laaxu jarak laaxu jarak nag laaxu basaab lay doon bu am ay saf-safal yu bari keccax ak sobleeg yëpp da cay am loolu moo doonoon laaxu jarak sëñ bi ko daan digle di ko toppatool boppam niki noonu mas naa ñëw njàppandal joxe fa menu de jour maanaam loo xam ne su bis bi moom lañ war a lekk daf ne altine nañ togg ceebu keccax bu am keccax ak ñebbe talaata nañ togg laaxu soow bu am soow àllarba nañ togg laax boo xam ne tiir gi day fekki cin li ci cin li lañ koy def bu ñu yàkkee maanaam bu ñu bëggee yàkk dañu jël tiir gi yëngal ko ci laax bi te duñ jël tiir gi def ko ci soow mi muy àllarba alxames ñu togg cere yoo xam ne ce ngoon lañ koy reere muy reer bi laa bëgg wax day am keccax ak ay saf-safal yu saf sap ci alxames ci bu ajjumaa ñu toggaat ndawal ceeb ceeb bu am yàpp bu gaawoo nag ñu door a bàyyi nag kenn meloon mooy lan togg laax boo xam ne laax kese lay doon bu ànd akum rek la muy àndal ci am soow daa di reere it ceere dañ daan reere bu dimaasee ñu lekkaat tiir gi nee na tiir gi fii ñu ngi koy lekk ñaari yoon par semaine keccax boobu di ànd ak ñeex mi boole koo itam maanaam euh, ceebu ñebbe bi ànd ak ñebbe ak keccax bi nii la ko limee ne boo ko buñ ko ko defee bu soobee yàlla loolu ñuy wax bémpéen gone yi du leen dal akuk néew doole goo xam ne bu ñu jógee dañuy terteri te muy animé ba mu ko waxee ñu tàmbali koo def bañ ko nettalee ko ñu wax docteur Fall dafa jooy ne sëñ Saliou fan la jàng médecine kon ñi naan sëñ bi jàngut dañoo dégglul sëñ bi xamuñu sëñ bi umpalee nañ sëñ bi nag ni ñu umpalee sëñ bi nag maa ngi leen di ñaan ñu umpalee ni sawara waaye buñ ne umpawul sawara du maanaam loolu du bar ci ñoom menu de jour bi muy li ñu war a lekk ci bis bi nii la ko sëñ Saliou doon sayto cet mi gone yi war a set daana xool nit rek mu jub ko mu ne na dem sangu ji wala na summi yére yi soli yeneen yére yi xabaan digaloon na waa tund woo wépp bu ne tund xabaan nag lu yaatu la tangis ak teen tubaab ak kër laay jaw ak eh, kër ma góoram ak kebe Eh, tund wa mu ne leen na ngeen di ay ayloo togg di andi ci daara ji nga xam ne bu takk takkusaanee dëkk bu ko aayee da seen sareet ya jiitle ñii tufe la ñuy andi ñu am doole ñii ginaar la ñuy andi ñii mbaxal la ñuy andi ñii cere ndawal la ñuy andi ñii cere baase lam ci jublu mooy nee na liggéey bi sëñ Tuubaa bi ñëpp ci war a barkeelu kon na ci waan tund bi barkeeloo noonu ba loola saxee mu daal di digle ne soxna ya fa nekk ca tund ba nañuy ñëw di fóotal donga yi nga xam ne ñoom dañuy ñëw taal ay mbana def cam ndox mu tàng kii for màggat ñi nga xam ne dañoo màggat mënuñoo fóot dem màggat yu jigéen yi dem di for yére gone yi ci biir daara ji ak di laaj gone yi seen mbubb yi ñu dencal seen bopp te mu tilim suñ baxalee mbana yi ba mu bax sëñ bee ko santaane woon microbe ndekete ndox mu tàng da koy rey sëñ bi ne bu ñu koy fóot nag bu ñu ñëw rek jàmb ko ci ndox mi noonu rek daal di koy fóot daal di koy wàcc noonu mu dem nee na soo ko defee microbe bi nga du bëggoon a rey mi ngi ci mbu mi ba tey dañuy njëkk baxal am ndox nee na sotti ko ci yëre yëpp bàyyi ko ba mu sedd gajaf ñu fóot ko ci saabu ba mu set te suñ noppee nañ koy paase ndax boo ko paasee nag la desoon ci microbe ba lépp dee na lii moo ko waxal boppam yemu ca mag ñi nga xam ne dañoo màggat mënuñoo fóot ñooy gaaral xale yi gaar nag mooy ñooy ñaw dañuy andi seen puso ak seen i wëñ kon kooku côté sante moo ci raw ministère de la sante li ma wax ne daana faj nit ba mu wérte ay bokkam duñ ko yëg xale bu tawatee woon xabaan sëñ Mbay Jóob rahmatullahi alayhi moom la sëñ Saaliwu yebal ndax diggante Mbuur ak xabaan sorewul daf ko nag gone googee nañ ko jëli te sooy dem kañuy wax maxtaar kebe am nag yëg te am nag yewwute na nga ànd moom mu yor xale bi bu fekkee dangay dem ñu taxaw ko taxawu ko mu dem ca kamara kamara moo nekkoon euh, kii euh, fajkati góom yooyu na nga ànd ak moom dem ca kamara bu dee jër yóbbu hôpital nga ànd ak maxtaar kebe ngeen yóbbu ko hôpital bu fekkee dañ ko fay tëye na fa maxtaar be des guddi la ma sëñ Ba Jóob jël si ak xale ba ñu dem mbuur am naa fa ñaar fukki fan ak ñaar ñu hospitalisé xale bi ci hôpitalu Mbour ma yor ko fa sëñ Bay Joob may indil añ moo may indil ree moo may indil ndékki xale bi def doon crise di tëb di dal ba may doon dugg ci hôpital ba dañ ma doon reetaan naan ma ah yow mi ana kii ana yaayam ana baayam ma leen maa yaayam maay baayam am sama fulla ak sama fayda xaw ma sax waa hôpital kat saal ba toll na na si saal boobu mbakkee mbàkkee boobu yi ku lay seet fi mu lay fekk saalu hôpital baa ëpp ndax saal bu mag a mag la ñu def ko ay lal ba mu fees ñëpp def ma kiimaan xale boobee yor naa ko fa muy kiris ñu koy faj te yaayam yëgut baayam yëgut men mbokkam yëgut keroog bu màggal Tuubaa jotee sëñ Fallou samam sëñ Fallou samam moom sëñ Souhaïbou moom la sëñ Saliou yebal nekkoon jaaral mbuur soo demee nga ànd ak Bay Jóob ngeen seeti xale ba su yàlla dogalee ñu bàyyi ko na maxtaar kebe màggal si suñ ko bàyyiwul nag mooy wallam ci màggal gi dama ko yoral keroog ba sëñ fàllu di dikk ca hôpitalu mbuur ba toroxtaange ju ma amoon ci di ma reetaan keroog am naa mbégte mu ni toll ndax ñëpp dagg topp ci ginnaawam mu toog ci lal bi nga xam ne mooy lal bi ngóor si hospitalisé woon ngóor si sol ay yéreem seet wecc dara metteetu ko bi sëñ fàllu dikkee ma ne sëñ bay jóob ah boo de sorti bi da yé jox nañ ñu ñu war a génn lii mooy sama màggal si waaye bu doon boo de sorti boobu ñu amoon man fa laa doon màggale kon wér gi yaram ni ko fi mu àgg sëriñ bi mosu faa àgg baay doom mosu faa àgg maam akub sët sakkantumaak sëriñ kub donga